yéen a ngi teewlu info 221 ami internet info 221 ñu àddu ak yéen ci xibaar jëm rek ci euh, menace bu CEDEAO ak euh, inquiétude sénégalais yi nga xamante ne ña nga te Niger ultimatum fixé ba nga xamante ne nag CEDEAO jox na ko junte bu nekk ca pouvoiru Mali maanaam militaire jamono ji nag expiré na niki dimanche bi lañ ko fas yéene woon a jeexal loole nag fas yéene exposé militaire yi ñu renversé nag pouvoir bi lee nga xamante ne kii di Mohamed Bazoum ma ba woon ca Niger intervention armée boobee amal ab euh, organisation euh, sous-régionale Ndakaaru nag di xam ne rek ne dina jot nag envoyé ay militaire am bu fekkente ne CEDEAO dafa décidé ngir rek ñu indi fa ay doomu Sénégal ñu jàppale leen rek ngir euh, jàmm dellu si wàll foofee nag ca Niger loolee nag boo mooy tuuti dina dugal doomu Sénégal yi nekk ca Niger jafe-jafe ndaxte bu ñu sukkandikoo ci i rajo mi joxe bile xibaar mu ngi ñu xamal ne bëccëg yu fan yi ñu mujj ni nag dina doon ab menace yi doomu nga xamante militaire nag bëgguñu benn yoon nguurum Sénégal ne ay militaire foofee ngir jàppale leen ñoom nag wuñ ko ca bëgguñu te ñu benn yoon ci dogal bi nga xamante ni CEDEAO jot nañ ko am ci ay kàddu ne nañ jot nañu dégg nag ne lu bëri ci ay compatriotes sénégalais ñi nga xamante ne ñooy dund ca Niger foofee nag jamono ji ci tiis ak naqar njaaxle sax lañ mën a nekk conséquence yi nga xamante ne daal wàllum ñàkk kaaraange ba fa nekk dafa impliqué wu réewum Sénégal foofee ndaxte jàpp nañ rek ni euh, ci i rajo Mamadou Abdoulaye Dem nekk ancien député bu diaspora moom nag nee na ñenn ci état bu Sénégal jël nañu soin ngir évacuer seen doom waaye ba tey ji ngurum Sénégal nag amagul la courage ngir rek fas yéene jël doomu Sénégal yu nekk foofu rawatina jëwriñ euh, bu ñu dénk wàllum affaires étrangères nee na nag koy encouragé engagé mu fas yéene jëli doomu Sénégal wala jël disposition yu mat sëkk ngir rek doomu Sénégal ya nekk ca Niger bañ a jënkonteel ay jafe-jafe ndax jamono ji dañ xaw a amatiit ak njaaxle gannaaw ba nga xamante ne nag dogal bi CEDEAO jël ngir rek daal di yónnee ay militaire ci yenn gox yi te Sénégal nag nee na pare na ngir daal di euh, dégg euh, dogal bi nga xam ne CEDEAO jël nañ ko ñoom nag ñooy sàkku rawatina jëwriñ bi ñu denk wàllum affaire étrangère na mu defee indi leen Sénégal wala sax ñu gën leen a a jafe-jafe fa